ci junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent test ñu def téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-benn fukk ak benn cas waaye am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñi nga xam ne ay cas communautaire lañ seen lim nii la tëddee am nañ ci fukk ak ñaar Liberté 6 fukk ak benn ci Kaolack juróom ci Mbour juróom-benn ci maatam ak Thiès ñeent ci Kolda Mariste Wokam Parcelles Assainies Rufisque Touba ak Yoff am nañ ci ñett ci Dakar Plateau Diamniadio Fann Résidence ak Kër Massar am nañ